daa bëgg a dugg ci jullit jumaa wax sartiyaat yañ ca soppat yañ ca aayeeg yañ ca sibëg teggin yaag yu bari yu ca aju jullit jumaa ku mu war moom faratay jëmm lay doon mooy faaw nga def ko sa jaan door a wàcc bu ñëpp defee te yow defoo it du tax sa jaan wàcc du dee nga gàddu bàkkaar ka war nag mooy góor nga génn jigéen jamono yi amee teqale ngor ak jaam gor rek la war jaam génnoon na ci yooyu jamono ku amul ngànt it waaye ku am ngànt ca ngànt yee ñi bëgg a wax ca kanam jumaa ja wàcc na ko mu sax ca dëkk boobee sax goo xam ne bu fa dëkkutit sax ga dana mat ñeenti fan mooy tax julli jumaa ga war ko moo xam dafa sax ca jëmmi dëkk ba jumaa ji nekk wala ci beneen dëkk boo xam ne boo ko dee seet wala sax nga ne beneen barab boo xam ne boo ko dee seet digganteem ak sorooru jumaa ja ëpput far sax muy ñetti mil mbaa nga ne ñetti mil ak ceeru mil waaye mën ngaa far jàpp rek ne ñetti mil yeeg ceer daal du sori juróomi kilomètre ak genn wàll ci digg doomu daal mën ngaa jàpp ne koo xam ne fa mu nekk dëkk fa mbaa nawet bee tax mu dem fa di fa liggéey wala dafaa toog di fa garder dara wala te épreuve yu màngaan ku seet seen digganteeg soror ba daal mu yem rek ci juróomi kilomètre ak genn wàll mbaa mu yées ko julli jumaa ga dal na leen di war ku soree lu ëpp loolu nag moom julli jumaa ga waru ko mën naa ñëw rek nag bu ko soobee def ko ngir sàkku tuyaaba mu daal di wecci tisbaaram waaye du tax nag mu war ko koo xam ne nag moom nekk nga ci dëkk ba jumaa ja nekk lu dëkk ba rëy rëy donte benn jumaa fa nekk it sa digganteeg moom doon kilomètres yu bare bari it faaw nga war a julli si su fekkee ne it da nga faa tukki si dëkkoo fa waaye yéen nga faa sax ñeenti fan it julli jumaa ga dal di lay war bu fekkee yéene woo faa sax ñeenti fan nag kon julli jumaa ga du la war tàmbalee wax sarte tax julli jumaa ga wér nga xam ne ku ko defee noonu ñu jàpp ne julli ga wér na duñ ko julliloo waat bu ko dee wàññi da koy def juróom waaye nag danga gis ni lii ab sart la ba noppi ci biiram mu ëmbaat yeneen sart làqu ca biiram bi njëkk a tudd mooy al istiitaan ak dëkkee maanaam al istiitaan wute naag al iqaamatu al iqaamatu moom mooy sax rek doonte saxuk tukki si dong la waaye dëkkoo fa al istiitaan nag mooy dëkk fa dëkkuk sax fa di wéy nga xam ne ak dëkk fa la du tukki si fa rek dëkk fa buñ ne am sart la day ambaat ci biir ñaari sart mooy buñ ne foofa na nekk ab dëkk ña fa dëkk nañu dëkkee na doon melo woo xam ne ku ko gis xam ne ñii yàllaa leen di toxal rek ci coobareem waaye dañ faa fas yéene sax di wéy lu mel ne pël yi niñ aadawoo di màngaan ak màngaan buñ fekkee barab mu am am ñax ak ndox bu nekk fa bu loola amatut ñu jóg taxu def seen néeg yooyu nga xam ne néegi jàpp ndal rek la ñooñu dañuy jàpp ne ñoo ñuy tukki ñooye moo lu ñu bari bari bari ci barab def seen néeg yu mel noonu rek dañuy jàpp ne dëkk amut ci tukki rek lay nekk sañu ñoo defar foofa jumaa te buñ ko defaroon julli ga itam julli ga du baax buñ aadoo dëkkee néegi ñax mbaa néegi seng mbaa néegi tabax moom daal nañu dëkkee ne doon anam goo xam ne ku ko gis xam ne ñii dëkk lañu nar yàlla nag mooy dogal ma tax mu ne laaxiya min waxuñu bu dee ñu dëkki ay xayma maanaam tànt yi arab yi dañ ko daan def yor seen tànt yoo xam ne dañu mel ni pëli rek di wëreelu fuñ gis ndox ak naataange sab seeni tànt bu loola jeexee ñu toxuwaat duñu am sañ-sañu defar jumaa te buñ ko defaroon buñ ca jullee du wér du tee nag ñu mel noonu buñ demoon ba ci dëkk bu am jumaa ñu campé ca pegg ba ci foo xam ne seen digganteeg jumaa ja mi ngi toll ci juróom kilomètre ak genn wàll rek kon kat julli jumaa ga dana leen war ngir topp waa dëkk ba mel ne dëkk bii tey ay pël bu ñu ñëwoon màng si daal ci wet gi te seen digganteeg fi jumaa ji nekk mi ngi toll rek juróom kilomètre ak genn wàll mbaa mu yées ko julli jumaa ga daal leen di war waaye nag topp waa dëkk bee tax mu war leen bu doon ñoom dong julli jumaa du leen war ñi nga xam ne nag bu nawetee ñu dem ci seeni tool sax fa ba nawet bi jeex ñu door a ñëw nañ seetlu seen tool yaag dëkk bi jumaa ji nekk maanaam seen digganteeg soroor ba ca soroor ba la ñuy tàmbalee nattu kilomètres yi bu tolloo juróom ak genn wàll rek yem ci mbaa mu yées ko ñu war di julli si jumaa su ko ëppee nag mën nañoo bañ a julli si jumaa ñu teel a jàppaale foofu ne koo xam ne julli jumaa waru ko du tee bëggee tuyaaba ñëw des ko yàlla bindal ko tuyaaba ja te it julli jumaam day wecci tisbaaram kenn du ko wax ne ko war ngaa julli tisbaar boole ja gannaaw bañ sàrtee nag dëkkuwaay ba demee noonu ne na mbooloo ma itam doy ca barab ba nga xam ne daal la yittee barab ba daal ñu ca mën a taxaw seen bopp bu ñu néew néewaay bopp duñu wax nag lim ba ne faw na mat nangam waaye daal ne lim ba takku takku goo xam ne lay seen yitte daañ ca mën a taxawal seeni bopp duñu néew ba nga xamee ne rek faaw dañuy wooy ñeneen ñu dimbale leen ci lañ bëgg a taxawal ca dëkk ba ay dëkk dëkkaan yu ndaw yoo xam ne benn réew yi ca du tee mën nañoo seet benn ca dëkk ya ñu tabax fa jumaa ja kenn ku ne yaa nga ca sa dëkku bopp te du tee nag bu bisu jumaa bi ñëwee ñu ñëw tase ca jumaa ja sartu ñaareel ba mooy mbooloo may fekkee jullit jumaa ga lu ñu néew néew dañ mat fukk ak ñaar ñu bokkut ak ilimaan te bu ñu def fukk ak ñaar doo nga yem ci day aajowoo kon ñu fekkee itam xutba ba boole ja te it bu fekkee ne ëpp ñu fukk ak ñaar day aajowoo ñoom ñëpp kenn bañ caa def lu yàq julleem ndax fukk yaa ak ñaar bu ci yemee am ca koo xam ne ak julleem daa yàqu kon mu daal di manqué fukk ak ñaar waaye bu fekkee ne lim ba mat na fukk ak ñaar rek doon ci sax ci ubbiteg jumaa ga la maanaam julli ga njëkk a julli foofu ci jumaa ja la itam ni ki ba ñu tabax jumaa ji moom dëkk bi bari woon na mbooloo mu doy ci lim bañ ca sartoon waaye gannaaw bi nag daa bari ñu toxu du tee ña fa def moom bu ñu matee fukk ñaar yu bokk te iliman rek mu doon julli jumaa gu njëkk ga ak muy geneen ñoo ci yemoo julli ga daal day wér ci sartub rek bu ñu fukk ñaar dong ñoom ñëpp ñu bokk teewe xutba ya seen julli itam dara bañ caa sikk ba ñu sëlmal waaye bu ci amee ñoo xam ne ba ñu tàmbalee xutba ak seeguñu woon te ñu fukk ñaar dong wala am ci kenn ku julleem yàqu rek dañ koy bàyyite julli tisbaar ndax sart ba dal di xëtt kon sartu ñaareel boobu soo ko bëggee leeral mën nga ne dafa ëmb ci biiram ñetti sart bu njëkk ba mooy mbooloo moomee fukki ak ñaar nañ doon ñoo xam ne julli jumaa daa war ci ñoom su fekkoon ne fukki ak ñaar gone da ca am mbaa ku fa tukki si rek mbaa jigéen kon du doy tey fukki ak ñaar nañ bokk ca ñu dëkk foofa buñ ci bëggee waññaale ay pël yu màngaan ci wet ga du baax ak nag li ñu waxoon léegi ci ndegam fukk ak ñaar rekk lañu ñoom ñëpp nañu teewe ba ilimaan di tàmbalee xutba te seen julli genn bañ caa yàqu ndax bu ca kenn yàqulee rek mu daal di manqué fukk ak ñaar su mbooloo mu xaseep nag fukk ak ñaar bu ci amee yu téewul xutba itam du ca wàññi dara waaye buñ def fukk ak ñaar dong moom te aajowoo ñoom ñëpp ñu fekkee ba ilimaan di tàmbalee xutba sart ñetteel bi mooy ilimaan mënta ñàkk ci julli jumaa ndax sañe su ko kenn kennoo boo ne nag ilimaan mënu caa ñàkk ab sart la saye ba wax ne day ëmbaat ci biir ñaari sart mooy ilimaan ja na fa sax duñu sart sax mu dëkk fa dëgg-dëgg waaye na fa sax sax koo xam ne dana tax julli jumaa ga war ko niki mu yéene fa am ñeenti fan baalu ko ëpp waaye bu fekkee dëkku fa te yéene wu faa sax lu mat ñeenti fan kon du mën a jiite bu fekkee itam dëkkul ca dëkk ba jumaa ja nekk waaye nag digganteem ak moom ngi toll ci juróomi kilomètre ak genn wàll mbaa lu ko yées rek nga xam ne julli jumaa ga war na ko kon ba tey dana mën a jiite ñàkk dëkk ca jëmmi dëkk ba jumaa ja nekk waaye fa mu nekk teewul jumaa war ko kon ba tey mën naa jiite foofu nag daal ñu fi joxe aw cax mooy bu fekkee ne lim bay julli si dafa yem ci fukk ak ñaar ak ilimaan te ilimaan boobee moom ca dëgg-dëgg dëkku fa dafa tukki si rek tukki boo xam ne dana mat ñeenti fan ëpp ko nga xam ne julli ñu maaga war na ko moom rek mooy jiite mu door a baax ndax bu jiitee boo wàññee ñi ca des ñi fukk ak ñaar ak moom kon mu daal di doy waaye bu fekkoon ne keneen ci ñu fa dëkk dëgg dëgg moo bëgg a jiite moom mi ñu bëgg ko wàññiwaale ci fukki ak ñaar julli ga yàqu ndax fukki ak ñaar moom day aajoo ñu dëkk fa dëgg dëgg te ilimaan ji moom sartuñu mu dëkk fa dëgg dëgg kon daa ñu caxee foofu di wax naa waaw jëmm joo xam ne bu doonee ilimaan jullee wér dem jiite itam seen julli wér te nag bu doonoon maamoom day yàqule ñoom ñëpp ñu bokk yàqule loolu nu mën a amee mooy lii rek jumaa la joo xam ne mbooloo ma fukk ak ñaar dong lañu nga xam ne ñoom fa lañu dëkk ka leen di jiite nag doon ko fa tukki si koo xam ne yéene na faa sax ñeenti fan baal ko ëpp loolu rek a tax jumaa ja war ko kooku bu jiitee rek bu baax waaye bu kenn ca ña fa cosaanoo jiitee moom ñu bëgg koo ñëwaale ci fukki ak ñaar kon nañu jàpp ni moom bokkul ci fukki ak ñaar lim ba daal di manqué julli ga daal di yàqu ci ñoom ñëpp sartu ñaareel bi ci ilimaan ji mooy na boole xutba ga ak jiite julli ga ni ñu man ci julli korite mbaa tabaski nga xam ne kay jiite julli ga ak ay xutba mën naa bañ a doon kenn bu dee ci jumaa moom ka def ñaari xutba ya moo war a jiite julli ga lu may nag mu am ngant loo xam ne nekkut ngant luy gaaw a deñ su boobaa kon na wuutal keneen mbaa mbooloo ma wuutal keneen waaye bu dee sax ngant luy gaaw a deñ moom ni ki daa fàtte ni moom kat jàpputoon rek te waaj daal di ñëw yomb na faaw dañ koy xaar mu daal di waaj ñëw sartu ñeenteel bi mooy ñaari xutba yi nga xam ne moom la ñuy xutba njëkk julli ga boo nee mooy sartu ñeenteel bi itam di ëmbaat ci biiram ay sart yu bari bokk na ca faw kay xutba ndegam mën naa taxaw amul ngànt day taxaw ci wax ji gën a wóor nee nañu taxaw ga xutba te bañ a toog waru gar la woo xam ne su ko bàyyee dana ci yenu bakkaar te du tee nag julli ga wér nga dolli ca bala ñoo xutba faw tisbaar day jot su xutba woon te fekk tisbaar jotagut du baax nga teg ca faw dañuy xutba ci biir jumaa ja su ilimaan nekkoon ci bitti xutba fa duggul ca biir jumaa ja xutba ga du baax julli ga du baax nga teg ca faw mu yëkkati kàddoom lu mu gën a yëkkati ku gën a baax waaye xutba yi mënu su koo ñàkk biral nga dolli ca faw arab lañ koy waxee doonte sax mboolem ñi muy jiite ñëpp ñëpp kenn du ci ab arab kenn déggu ci arab it xutba bi moom ci arab la koy def loolu nag ci jamono yu njëkk yi la léegi ñi nga xam ne ñuy gëstu wàllu fiq ci doxinu adduna bi nee nañu sañis naa def xutba bi ci weneen langue bu bokkut ak arab waaye nag waa Tuubaa ñoom ba tey dañoo jàpp rek ci cosaan la seen xutba ñoom duñ ca rax dara ndax bu ñu nee dañu bëgg rek ñuy julli si xam lañ wax ca xutba ba mënees na balaa ilimaan bee ñëw am ku jiitu wax mbooloo mi luñ bëgg waxtaan ak ñoom ci xutba bi su ko defee bu ilimaan bi dikkee rek aw ci cosaan daal di wax arabu kese nga dolli ca xutba bi faaw day sës ca julli ga buñ leen teqalee teqale bu yàgg rek du baax nga dolli ca faaw lim ba nga waxoon ne mënta ñàkk muy fukk ak ñaar yu bokkut ak ilimaan faaw fukk ak ñaar nañ teewe xutba ba niñ ko waxee woon bi doonoon fukk ak ñaar doom am ca koo xam ne ba mu ñëw fekk na ñu xutba ba noppi du baax nga dolli ca xutba bi faaw day jiitu julli ga bokkut ak korite mbaa tabaski nga xam ne julli ga mooy jiitu xutba ba mujj bu ilimaan juumoon ba njëkk a julli jotaguta génn jumaa ji te yàggul dara kon day baamu julli ga mel ne kon sës na ci xutba ya waaye bu fekkoon ne yàgg na mbaa mu génn jumaa ja rek lépp day yàqu kon day baamuwaat xutba ya baamuwaat julli ga nga dolli ca xutba ba na doon la arab yi daan tuddee xutba biñ ne xutba ñoom mooy waxanteeg mbooloo ma loo xam ne amal na leen njariñ ci buñ ko defee mbaa buñ ko bàyyee nga xam ne bu yamoon ci tudd yàlla rek mbaa julli ci yonent bi rek amut benn njariñ bu mu leen di xamal dee su ko tudde xutba lu mu gàtt gàtt nag bu ëmbee loo xam ne mën nañ koo jariñoo ci seen wàllu àdduna mbaa ci seen wàllu alaaxira rek lu mu gàtt gàtt daal di doy bemoon ci ittaqullaha fi ma amar wantahu xamma xanhu naha wa zajar ragal leen yàlla ci def la mu leen digal ak ci bàyyi la mu leen tere képp yem ci itam du tee mu doy waaye nag bu jekki woon di sàbbaal mbaa muy kàbbar mbaa mu ñaan rek du tax mu doy balaa tudd xutba daal mu wàqanteeg mbooloo ma loo xam ne mën nañ caa jariñu ci buñ ko defee mbaa ci buñ ko wattandikoo lum néew néew baax na am niñ ko waxee woon léegi ñaari xutba yi faaw rek mbooloo mënta ñàkk bi fukk ñaar nañ ko teewee ñu ko waxoon léegi bu ñu yemoon ci fukk ak ñaar am ci koo xam ne teewul ba ñu xutba gannaaw ba la ñëw rek du baax suñu nee du baax rek mooy dañuy bàyyi léppi julli jumaa ga ak la ca aju te julli tisbaar bu lim ba teewee rek nag mu baax teew ba noppi ñàkk faali xutba ba bañ koo déglu mbaa ñàkk xam la muy tekki moom di ca wàññi dara sartu juróomeel bi mooy faaw rek ci jumaa la ñuy jullee julli jumaa ga mu door a baax bu ñu nee nag dañuy sart ñu jullee ko ci biir jumaa dañuy xamle ne bu ñu làkk-làkkalee rek ay doj wala ab barrière nga tegale muur rek ba muur ndax ñu jàppe ko jumaa bu ci jullee jumaa itam du wér dañuy sart rek nañ defare jumaa ja bu mu yées seen dëkkuwaay ñoom nit ña bu dee mag ñi nga xam ne ay néegi ñax lañ daan dëkkee jumaa ja mën naa doon néegu ñax bu fekkee dañ ne bi seng xewee seng moo gën a foor néegum ñax kon yooyu jamono dañuy def jumaa ja seng jamono yi tabax xewee nag bi ci jamono yi faw rek kon jumaa ja dañ koy tabax dañu bañ daal mooy nañ defare néegub yàlla ba mu jumaa ja liées seeni dëkkuwaay de sax sartuñu ne faw dañ koy tabax tabax yi sàngam woo xam ne mënu caa ñàkk lañ jublu daal mooy nañ defare jumaa ja bu mu yées seen dëkkuwaay bopp nga teg ca jumaa ja na nekk ci biir dëkk ba mbaa boog mu sës ci rek mbaa boog mu bañ koo sori lool bu xësee sori dëkk ba rek buñ ci jullee du doy nga dolli ca nag nay jenn jumaa rek bu fekkee ne foofa du dëkk bu mag a mag ba aajowoo ay jumaay jumaa kon jumaa ja na nekk benn rek suñu demee nag ba jumaa jooja dafa xat te mëni su ko yàqali ndax foofu daa sus ci am ndox ñu tabax jeneen jumaa nag muy yaar waaye xataayu jumaa ju njëkk ji te mëni su ko yàqali moo ko laaj ba tey loolu baax na ba tey nee nañu bu fekkee mbooloo mu dañoo xaajalikoo amuk noonoonte ba nga xamee ne buñ dajee ci jenn jumaa faaw ñu jàppante xeex te kenn du leen mën a lijjanti ba tey kon mën nañoo def yaari juma ñee féete fee ñee féete fee bu ñu nee nag barab bi bu ko fi am juma la ko wër tolloog juróomi kilomètre ak genn wàll ku fa nekk war a julli si kon li fekk nga xam ne jenn juma jooju xaj nañ ca amuñu ngànt kon ñoom ñëpp dañuy ñëw ca jooja rek lu weesu nag juróomi kilomètre yaak genn wàll moom nes na fa tabax jumaa bu fekkee ne ña fa tase mat nañ mbooloo ma ñu waxoon ci defar jumaa bu ñu defee nag lu ëpp jenn jumaa te jenn rek fa waroon a nekk kon dañuy seet ya nga xam ne ci la njëkk julli julli jumaa duñu seet jan moo njëkk àgg ja bañ koy tabax dañuy seet rek ana jan jumaa lañ njëkk julli julli jumaa ñu jàpp ne jooja mooy ju njëkk ja ku ca jullee rek am julli ku ca julleewut doo am julli dañoo jubu rek jumaa ja nga xam ne moom lañ njëkk a ubbi moom lañ njëkk a daloo wa in axara adaa an jum wax nag mooy buy àggee ci benn bisu àjjuma boo xam ne jumaa jooju njëkk a daloo dañu waxoon ne ca dëgg-dëgg mooy jumaa ja ku ca julleewut doo am julli moom daa yéex a julli ba jeneen jumaa ja jiitu ko itam du tee rek ku ci jullee am julli ku jullee ci jeneen ju bokk te jooju rek doo am julli waaye nag bu fekkee ñoom ñëpp ñoo maase ci bàyyi jumaa ju jëkk joojee dem di jullee ca ja ca des ba tey loolu baax na li ñu bañ rek mooy yaari jumaa baalu ko bu nekk fa te jenn fa waroon a nekk ñu jàpp ne ñu njëkk a taxawal julli jumaa rek mooy wér day jamono moom ku bàyyi jooju dem ci jeneen doo am julli waaye buñ maasee ci bàyyi jumaa jële def ko lu mel ne ab jàngukaay mbaa leneen dem ci jeneen jumaa ñoom ñëpp ñu maase ca ànd loola dara nekku ca bu leen neexee itam ñu wëlbatikuwaat ne dañ delluwaat ci jumaa ju jëkk ja moom daal ñu bokk kàddu ji féete ci jenn jumaa dara nekku ca xaajalikoo ba nag ci loo xam ne wartoon am genn jumaa fa waroon nekk ñee dem fee ñee dem fee te wërtoon am su boobaa niñ ko waxee rek jumaa ji njëkk a julli ku ci jullee am jumaa ku julleewul ca jooja doo am jumaa am sart yoo xam ne borom muxtasar andi woon na ko doon ci wax wuute ba ca am moom nag mu far la wax la ci gën a wóor rek mooy jumaa ji buñ ko yëkkatee ba mu taxaw rek dal nay baax duñ sart ne faw dañ koy xadd buñ mënee rek bu julli ga jotee ñu julli fa jumaa ja moo xam dañ koy baas mbaa nuñ koy def rek ba mën caa jullee daal nay baax duñ sart ne faaw ñu xadd ko daa am lu ñuy wax ne faaw dañ koy xadd ba tey duñu sart ne dañoo war a dogu ci jumaa joojee rek ca la ñuy saxal di ci jullee duñ ko fa toxale yóbbu ci jeneen lu may ci ngànt ba ñu noppee ci jumaa ji rek saye boo ñu tàmbali di ca jullee nañ ko waxee woon bu leen soobee ñu dem ba yàgg ñu bàyyi jumaa jooja tabax jeneen te bokk ca dem bu leen neexee itam ñu nekk ci jooja ba yàgg ñu ñëwaat ci ji jëkk ji duñu sart ne balaa julli jumaa gaa baax ñu dogu ci ci la ñuy saxal di ci jullee julli jumaa gi lay bon rek mooy def yaari jumaa xàjjali ko ñee di jullee fee ñee di jullee fee te fekk du dëkk bu rëy ba moo ko laaj mbaa leneen ngànt moo ko laaj dafa am nag ñu wax ne faaw dañuy doow rek ci jumaa ji daal ci la ñuy jullee saxal ci jullit jumaa gi faaw dañu am yéene dogu ca loola ba loola yi tedd ko nag ci coobare yàlla waaye faaw ñu war a am goog a dogu waaye jàppal rek liñ njëkk wax ba tey daa am ñu wax ne julli jumaa ga balaa baax jumaa joojee ñu def fa julli julli yi juróom wax ji gën a wóor mooy loolu du ab sart mën nañoo def fee jumaa ja kenn ku ne di julli julli juróom yi ca sa jàkkay bopp bu bis ajjuma jotee rek ñu door a ubbi jumaa ja jullee ca julli jumaa ga ak tub jumaa ja ak yoon ya nga xam ne ñoo sar ba agsi ci jumaa ja xam ne dara làqu leen doxul seen diggante jumaa ji jàppal ne ku jullee ci ëtt boobee mbaa ci yoon yooyee su julli moom faw dañuy jàpp ne wér na duñ wax ne julliwaatal waaye nag am na teqale ci kaw su fekkee ne jumaa jaaxat wala sàpp ya moo jokkaloo ba àgg ca ëttub jumaa ja mbaa ci yoon yooyee moo tax nga jullee fa moom sa julli si buñu ko amul dara luñ cay wax su fekkee ne nag biir jumaa ja xatut sàpp ya jàppaloowut ba génn ca ëtt ba mbaa ci yoon ya te teewul nag nga jullee ca ëttub jumaa ja mbaa ca yoon yooyee kon def nga lu ñu sib sib gu tara tar nga xam ne moom daal dañ ko tuddee sib waaye mel na ne aay nañ ko aaye gu méttee métti moo tax sax mu indi baatub woo mu nihat kon su wax ji naree jaxasoo ci yow nga ne ëttub jumaa ja ak yoon ya nga xam ne ñoo ñëw sar baax si ci moom bala nga caa julli rek na fekk biir jumaa ji xat wala boog sàppe ya sàppe génn ba agsi ci ëtt ba mbaa yoon yooyee su loolu amul nag te teew laa jullee ci ëttub jumaa ja wala ci yoon yooyee sa julli wér na waaye def nga lu ñu bañ a bañ a bañ mu ne nag yéeg ba ca kaw teraasu jumaa ji nga jullee ca moom ku ko def ak julleem du baax moo yéeg ca kaw kaaba ga jullee ca kaw ñoo yemoo lu araam la ku ko def ak julleem du baax teewul na am nañu ne bu dee jumaa ji moom fekkee xat gaa tax mu yéeg jullee ca kaw teraasu ba dana baax ba tey lépp loo xam ne dañ koo tabaxaale ci jumaa ji waaye digganteem ak biir jumaa ji jullee deful ngàpp nga xam ne am na lu ko làq fa ñuy jullee moo xam day néeg buñ defar ngir xeeti làmp yeeg bagage yeeg yooyu wala kër guñ fa def ngir daara wala ay boutique yi ñu ràngale foofa ñuy jaay ak jënd yooyu yëpp daal loo ci xam ne digganteem ak fa ñuy jullee ci biir jumaa ja am na lu ko làq néewul ŋàpp rek ku fa jullee julli ga du baax takk-takk bi daal mooy su foofa ubbi ko ne ŋàpp rek dara doxul digganteem ak jullikaay ba ñu jullee ci biir jumaa ja kon ku fa jullee am julli bu deful ŋàpp rek ku fa jullee du am julli kon nag àggale na sart yee tax julli jumaa gaa war ak sart yee koy taxa mbër ak sax bu amee yu làqu ca biir yoo xam ne dañoo boole di sarti war di sarti wér kon mi ngi jàll ci wax nag sunnay julli jumaa ga dana ca tudd yett bi mu jëkk tudd mooy ilimaan ji bu dee xutba ñu wëlbatiku jàkkaarloog jëmmam am na ñu ne sax lu ñu sopp rek la am na ñu ne it daa àgg ci war na ko almudawana indee sax ak waral la tegtale ndax dane wa ida qaama al imaamu yaxtubu fa xiina idin yajibu xatahul kalaami wa istiqbaaluhu wal insaatu ilayhi waaye daal doon gi sunna moom lañ gën a dëgëral neen maali neen woon sax as sunnatu indana an yastaqbila annaasu al imaama yowma al jumua ida araada an yaxtuba man kaana minhum yali al qiblata wa gayraha loolu ma nga ca al muwatta booy jàng muxtasar moom daa waxoon ne ñu nekk ca sàppi su njëkk sa ñoom duñu leen sant ñu wëlbatiku di jàkkaarloo jëmmi ci xutba ñu nekkul ca sàppi su njëkk sa rek la ñuy sàkku ci ñoom loolu ba tey am na genn wute am na ñu ne sa jëmm du jar nga di ko wëlbati su wëlbatee sa kanam jëmale sa kanam ci moom rek mu doy am ñu ne jëmm ji ci boppam mooy wëlbatiku jàkkaarloog jëmmi kay xutba na addis ba andee nag moom dafa mel ne dafa jamtalu yaar yëpp ndax yax ba mooy ida qaada al imaamu ala minbar yowmal jumuhati fastaqbiluuhu bi wujuhikum war muquuhu bi ajfaanikum su ilimaan bi toogee ci kaw minbar bi ci bisu àjjuma ba na ngeen ko dëgmal bi wujuhikum boo nee ak seeni jëmm wala boo nee ak seeni kanam ne ko jàkk nag ak seeni mbari bët mel na ne kon jamtalu na yaar yëpp lee mu ne itam ida ahadal imaamu mel ne su ilimaan bi toogee rek ci minbar bi ñu daal lay digal nga wëlbatiku jàkkaarloog moom waa boo di topp wëlbati sa kanam nga wëlbati sa kanam jëmale ci moom dañoo jàpp ne yax bee indi isaa xaxal rek waaye lu mu jub dëgg dëgg mooy su taxawee ba tàmbalee xutba kon soo bëggee gàttal daal njurum maalit ci googu wàll da ngay wax ne lay sunna mooy bu ilimaan taxawee di xutba ñépp wëlbatiku jàkkaarloog jëmmam ja ka koy gis ak ka ko gisut kay dégg ay waxam ak ka déggul ay waxam dañuy wax nag bu dee ci jàkka ji ci kaaba ga ak bu dee jàkka yi yonante bi ci madina moom ñëpp ñëpp duñ mën loolu na jàkka ja demee foofee ca kaaba ga ak ca madina mooy tax ñëpp duñ ko mën ñenn ñaa koy mën rek ñaari xutba lay doon mooy nag sunnaal nañu balaa tàmbali xutba bu njëkk bi mu toog as ndiir su gàtt mel ne ndiir suñu mën a jànge qul huwa allahu ahad bu xutba bu njëkk bi jeexee itam balaa tàmbali bopp ñaareel ba mu toogaat di su toll noonu dóor a jóg def xutba bopp ñaareel bi ñetteelu sunna bi mooy sangu ca ngaay lu mel ne nit ñi sangoo janaaba képp koo xam ne am na yéene dem julli ji rek doon sax julli ju màgg waru ko niki kuy tukkite yéene wu faa sax ñeenti fan wala jamono yi jaam amee jaam wala jigéen wala gone du tee rek sunna la ci moom mu sangu ndegam nar naa dem ca julli jumaa ga ca ngaayul ajjumali mëneesu koo def njëkk fenkoo fajar gannaaw nag bu fajar fenkee rek moom mën nga koo def daal di wuti jumaa ja ndegam da nga fay toog ba xaar fa julli jumaa ga dañuy sart itam bu sangoo ba noppi rek daal di wuti jumaa ja boo toogaatee lu néew rek amul solo du wàññi dara waaye su fekkee sangu na ba noppi te dalul dem ba mu yàgg kon ñàkk na ci ngaay la su bëggee sunna sa faw mu dellu sanguwaat ba tey bu sangoo ba noppi lekk mbaa mu nelaw te lekk ga mbaa nelaw ga topp bànnee xam la waaye agutoon ci xiif lool agutoon ci gëment lool lool de bu fekkoon ne dafa àggoon ci xiif lool mbaa mu gëment lool mu daal di faj lorom ci lekk-lekk gu gaaw mbaa nelaw nelaw yoo xam ne yeggut loola kon du yàqu ca ngaay la waaye gannaaw bu sangoo moom bu fa lekkee mbaa mu nelaw fa ci kaw coobareem mbaa boog nelaw yi day lor la ngant la waaye nag dafa yàgg boole ca yooyu yëpp faaw rek bu bëggee sunna ca ngaay la day dellu sanguwaat sangu woon nag ba àggal daal di wuti jumaa ja yàgg nag ci yoon yu ba lekk ca mbaamu nelaw ca mbaamu dama dem ba ci biir jumaa ja mu lekke fa mbaamu nelaw fa loola du yàq dara ca ca ngaay lam amoon bul fàtte ni ca ngaay li sunna la buñ ne yàqu na itam su bëggee tuyaaba dellu baamuwaat ko waaye su sawarut mën naa bàyyi rek du tee julli ga moom baax wax na it na yi aju ci julli jumaa ga bu ñëw nag ci yañu ca sopp yiñ ci sopp nag moom moo bari lool buñ ko topp ko wàññi dana mel ne dana àgg ci fukk ak juróom bañ ca njëkk a tudd nag mooy rafetal aw meloom te mooy jemp ay mustaasam bu guddee ba ëpp léegi ay wexam bu fekkee aajo woon naa léegi xus kawarub poqtaanam wat kawarub naqam ndegam aajo woon na ko yooyu mu wax yëpp daa dugg ci rafetal melowa nga teg ca nag soccu bu ñu nee nag soccu gi lu ñu sopp la mën na am sax mu dem ba war ndax bu amee xet bu naqari boo xam ne soccu mën na koo dindi faaw mu war a soccu ndax dindee ko xet gu naqari ga ci gémmiñam mu teg ca rafetal ay yéreem rafetal ay yéreem bu dee dem jumaa nag moom dañuy jàpp ne yére yu weex lañ gën a taamu ci jumaa doon ci sax gënuta yees gënuta rafet daa wuuteeg bisub korite mbaa tabaski moom lu gën a rafet rek doon ci weexut lañ gën a taamu bu ajjuma ja doonee bisu korite boole ca mbaa ba ci tabaski nag kon dañuy sàmmoonteeg yaar yëpp su amee lu gën a rafet te weexut mu sol ko ba ba muy julli ji jumaa buy dem ci jumaa ji nag sol lu weex bu julli jee ba ñëw nag dellu solaat lu gën a rafet te weexut da cee teg gëttu maanaam xeeñoo xet gu neex taamu nañ ko lool ci kuy dem ca jumaa ja waaye nag yaar yu mujj wax muy rafetal yére ak gëttu xeeñoo xet gu neex jigéen bokku ca jigéen moom buy dem ci jumaa ja du saña waaj du saña xeeñoo xet gu neex da cee teg buy dem ca jumaa ja mu dox ak tànkam bu dee ñibbi si moom jaamu yàlla gi jeex na mën naa war mbaa mu dugg oto ba leneen waaye jëmmi dem nga moom sopp nañ mu dox ak tànkam ndax la addis ba ne manir barrat qadamaahu fi sabilillah xaramahu llahu ala nnaar bu dem ci topp yàlla ba ay tànkam fënd ca yàlla araamal yaramam ci sawara te gis ne dox gi jëm ci jumaa ja bu xawee sori rek mën na ca amee ay tànk yu fënd te nag li ci ëpp bu waree moom mbaa mu dugg ay tànkam mën naa bañ a fënd te it ndegam day wuy ji wooteeg yàlla kon dox ak tànkam ak toroxlu la loola mën naa tax yàlla yërëm ko defal ko pajub aajo te cee teg dem ci waxtu njolloor njolloorlu teel a dem ca jumaa ja takk-takk ba mooy bu ñu nee suñ digganteeg ñi noddu noddu gu jëkk gi des na wenn waxtu wenn waxtu woowee la ñuy xaaj juróomi xaaj xaaj bu ca ne doon fukki minute ak ñaar la addis bu waxee nag ku sangu ci bisub ajjuma bi nañuy sangoo janaaba ñu waxoon ne sunna la teel a dem nag ci fukki minute ak ñaar yi nga xam ne ñoo njëkk ja waxtu woowee day mel ne am nga tuyaa bay gëléem gu suur da ngaa mel ne ku jaamoo sa borom gëléem gu suur mu fay la tuyaa bay gëléem gu suur ku dem ci fukki minute ak ñaar ya ca topp day mel ne jaamu nga sa boroom aw nag mu fay la tuyaabay nag ku dem ci fukki minute ak ñaar ya ca topp mel ne jaamu nga sa boroom am xaaf bu rëy béjjën ku dem ci fukki minute ak ñaar ya ca topp mel ne jaamu nga sa boroom ak ganaar am tuyaabay ak ganaar ku dem nag ci fukki minute ak ñaar ya mujj ci waxtu woowee mel ne jaamoo nga sa boroom ab nen am tuyaabay ab nen bu ñu nee daal suñ digganteeg ñu nodd nodd ku jëkk gi benn waxtoo ci des waxtoo wala ñuy xaaj juróomi xaaj xaaj bi ci ne doon fukki minute ak ñaar kem na nga gën a gaaw a demee nag ci juróomi xaaj yooyu ngay amee tuyaaba ju tol noona ñi ko addis bi ràññeele waxtu woowee nag moom la addis bi xaaj juróomi xaaj te xaaj bu ca ne mu tuddee ko waxtu man irtasala yowmal jumuhati xuslal janabati tumma raaxa fi saaxati al ula fa ka annama qarraba badana wa man raaxa fi saaxati attaaniya fa ka annama qarraba baqara wa man raaxa fi saaxati attaalitha فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساحة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساحة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر dañu ne malaaka yi dañuy ñëw taxaw ci buntu jumaa yi ku ñëw rek ñu daal lay bind jàpp waxtu wa nga dikkee amaana sax ñu saafu xante yow wala ñu laal la su waxtu woo jeexee ci la ilimaan ba war a ñëw dal di tàmbalee xurbaaka julli ku yéex nag ba waxtu woowu jeex da nga fekk malaaka ya bàyyi ko ci buntu jumaa yi ñu taxawoon dem nag di déglu xutba ba hadis boobu abu hurayrata moo ko nettali rawaahu malik wal buxaari wa muslim bokk na ci yéen gën a sopp sopp ku sedd li ilimaan ji dattal ñaari xutba ya te yàggal julli ga te it xutbab ñaareel ba gën a gàtt bu jëkk ba gàttal xutba ya te yàggal julli ga addis ba nee na daa bokk ci dégg diine ak dégg loolee di julli jumaa ga ko wax abul yaquzaan dane moo dégg yonante bi wax ne inna toola salaati rajuli wa qisara xutubati ma innatun min fiqhi fa atilu alsalaata wa qassiru alxutubata wa inna min albayaani sixran rawahu muslim yonente bi ne kay jiite yàggal julli la te gàttal xutba ya tegal la ci ak déggam diine ak uk déggam julli jumaa ga day leen yàggal seeni julli tey gàttal seeni xutba wax nag mën naa rafet rafet ba lu mu gàtt gàtt doy sëkk tàbb itam ci xol yi bu baax a baax boroom ñaari xutba yi faw dañ koy biral wax ko ca kaw waaye nag xam nga wax ca kaw dafa bari ay tolluwaay kon sopp ko mooy ilimaan ji gën a yëkkati kàddoom lam man ndax ñu aajowoo dégg ñëpp di dégg ñu sopp itam ñaari xutba yi bu ci nekk ñu tàmbalee ko sant yàlla ak julli ci yonte bi ñu sopp itam xutba bu ci ne ñu jàng ca lu bokk ci alquran doon ci sax day jenn laaya baax na am na ñu ne yonante bi daana jàng ci xutbaam bu jëkk yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan ba ca fawzan aziman su ca mënee jàng nag saaru gàtt te saaru lépp ñëw ni ki mu jàng ca suratul xasr wal xasr innal insaan la fi xusr ba saaru jeex loolaa gën ñu sopp itam xutbab ñaareel ba mu daaneele ko yaxfirullahu lana wa lakum yàlla nanu yàlla jégal te liggal leen wala udkurullaha yazkurukum dee leen fàttaliku yàlla mu fàttaliku leen yàlla moom du fàtte kenn du fàtte dara waaye nag ku ko fàtte bu jëflante yow jëflante ku la fàtte daa bokk ci liy sopp ci bu dee xutba moom ilimaan bi boot aw yet wala ni ñu koy defee bala man jàpp ca noonu mu taxaw di xutba loolu sopp nañ ko yonent bi daana ko def nee nañu gannaaw rek abubakar ak omar ak usmaan yëpp daanañ ko def moo tax ibnu shihaab ne kaana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida qaama axada xasan fa tawakka alayha wa huwa qaimun ala al minbar ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك بكون ci ngëne lañ feddali iliman ba rakk bu jëkk ba gannaaw fatiha mu jàng ca suratul jumuha rakkab ñaareel ba nag mu tànn hal ataaka hadis bu rasiya wala sabbih isma rabbika moom ci jàng baax na bokk na ci sopp gone dem julli ji waru ko waaye sopp nañ gone mu dem ci jumaa ja gone gañ digal julli nga xam ne am na juróom-ñaari at jëm ca kaw lañ wax màggat mu jigéen mooy jigéen joo xam ne màggat na ba góor ñi gëstooruñ ko ba tey sopp nañ mu dem ca jumaa ja jaam boo xam ne daa tàmbale jot boppam mooy daa juboon ak ab sangam ci fay ko àllal tam goreel ko sotteegul waaye ma nga ca loola moom du aajowoo muy laaj ndigal sopp nañ mu daldi dem julli ji bu dee jaam bu sotti nag nga xam ne moom nekkul di jotoo bala ñoo sopp ci moom mu julli ji ab sangam may ko ci ndigal daa war am ndigal njëkk ku amee ngànt koo xam ne sañ na julli ci sibaar ndax ngànt la waaye nag yaakaar na ne ngànt li dana deñ ba mën a fekkee ci jumaa ja mel ne ñu téye ko ca gendarmerie waaye lañ ko téye daal nekkul lu am solo kon daañu sopp bu ci sibaar jotee itam bu bañ koo jullee foofee ca gendarmerie ba te bàyyi ba xam lam jotoon ci ñu bàyyi ko ba amee ba daal dem ca jumaa ja su fekkee la amul nag ba xam loolaay dogal ba bu fekkee nag yaakaaru ne ngànt la luy gaaw dañ la nit yi kooku ñu téye ci gendarmerie bi liñ ko téye day lu rëy rëy loo xam ne kuñ ca mësaa téye moom say mbir du gaaw kon du jar muy yeexe tisbaar say bo rek mu daal di julli fa saasa ñu sopp ci moom ak yeexe koo xam ne jumaa ji war na ko daa war a dem rek ci jumaa ja su dëgëree bopp nag julli tisbaar dañ jàpp ne waxtu woowu mu julli kat bu demoon ci jumaa ja mën caa amub rakka tisbaaram joojee du baax bu ko ajjuma waree te naru caa dem moom lay tane mooy mu bàyyi ba jumaa ji sëlmal mu doora taxawal ak julleem julli tisbaar baakaar ba rekk des fa muy ñàkk gaa dem ca jumaa ja waaye li fekk nga xam ne jàpp nañ ne bu jëwoon wuti jumaa ja mën ca amub rakk rek yooyu jamono bu jullee tisbaar te fekk jumaa ja war ko tisbaaram jooje du baax faaw da koy julliwaat kon ku jumaa war te naru caa dem na bàyyi ba jumaa ja sëlmal baa boog mu bàyyee bàyyi ba nga xamee ne bu jógoon jëm ci itam du ca mën amub rakk mu door a taxawal nag julli tisbaar ñàkk dem ci jumaa ja nag te amul ngant itam dafa bari lool yuñ ca tëkkoo moo tax nag ku war rek war naa farlu ci di ca teew bu amee ngant nag xam ne am na ngant dañuy wax ngante yi ci kanam boo xam ne daa amee woon ngant lu ko may mu bañ a dem ci jumaa ja far nag ngant la teggiku te nga xam ne bu demee ci jumaa ja mën ca am baraka kon kooku bu fekkee julli woon na itam julli googee du doy faaw rek daa war a dem ci jumaa ja moom sax des ko yedd ndax ngànt moo ko taxoon a julli tisbaar waaye nag mën naa am gannaaw ba mu jullee tisbaar ngànt la dañ te jumaa ja jullee guñu mel ni day am jamono yoo xam ne su benn waxtu jotee rek daanaka tisbaar daal jot su xamee loola nag jàpp ne man am naa ngànt daal di julli tisbaar te fekk bu dee jumaa ji ci dëkk bi moom dañoo takk rek ci ñaari waxtu la ñuy tàmbalee xutba kon ngàntam mën naa dañ ba noppi mu mën a dem fekke jumaa ja kooku nag jullee bu njëkk du doy faaw de aajowoo mu bañ a doy loo tisbaar ja te dem ci jumaa ja dagam ngàntam dañ na te mën na faa dem ci jumaa ja am ca rakka koo xam ne gone la nga xam dem ci jumaa ja du farataam mu daal di julli ci sibaaram ba àggal nag gannaaw ba mu yëg ak kàllafeem te nga xam ne bu demee jumaa ja mën caamu rakk gone googu ci sibaar bi mu njëkk na julli wéeroon na baaxoon na waaye faawu de war ci moom rek mu daal di wuti jumaa ja julli ji jumaa ndax ci sibaaram joojee moo ko naa fi li ñoo yemoo woon julli waru ko woon léegi nag bi mu kàllafee julli war na ko te tey la ajjuma te mën naa am rakk ci julli jumaa ga kon faaw war naa dem ca jumaa ja jamono yi ñuy xutba ku tisli dañoo sopp mu wax alhamdulillahi rabbil alamin ci suuf te bañ koo yëkkati ndax bu ko yëkkatee mën naa am kenn daal koy wax ci kaw yarhamukallah daal di koy ndokkeel te bëgguñu ku yëkkati genn kàddu ci jamono yi ilmaan bi xutba kon bu tislee dañoo sopp mu sant yàlla te wax ko ci suuf bu ilimaan de xutba ba nga dégg mu tudd loo xam ne ñaan la daañu sopp nga wax ci suuf ne amiin waaye kenn du ko yëkkati nag bu tuddee loo xam ne mat naa muslu mel ne sawara ak mujj bu ñaaw yooyu ñu sopp nga ne yàlla yàlla mu ci musal te wax ko ci suuf bu tuddee loo xam ne bàkkaar la lu mat a jégul la te nga xam ko ci sa bopp nga ne suñu borom yàlla nga ma jéggal loolu day def naa ko ba tàyyi mbaa nangam ak nangam waaye lépp rek ci suuf kenn du ko sañ yëkkati ci kaw gannaaw nag ba mu waxee ñu sopp da cee bëgg teg yi nga xamee ne sañes na ko dagan na door caa teg yi nga xam ne ñu sib lañu door caa teg nag ya araam mu jëkkee wax ne su fekkee ilimaan ñëwagut bay toog ci kaw minbar wi kon boo séenee yaatu yaatu boo mën a dugg mën ngaa jéggi sàppe si jàll ca see dangam séen nga ak yaatu yaatu rek jéggi sàppe si jàll ca see dagan na dana leeral ca kanam ne su fekkee ilimaan ñëwagut bay toog ci min bara nga bëgg a jéggi nag sàppe si jàll ca see tey séenoo foo toog dangaa bëgg rek xool ba xam ne nga ci foo toogam nit waaye séenoo fenn fooy toog boobaa dañ koy sib gannaaw bu ilimaan bi xutba ba àggal li fekk ñi armal wax allah akbar tàmbali julli ga rek mën nga jéggi sàppe si jàll ca seneen jàll ca seneen moo xam séen nga foo mën a toog moo xam séenoo foo mën a toog ndegam daal xutba bi àgg na ñu ngi jëm nag ci liqaama ka armal diggante boobu laata ñuy armal moom mën nga fee jéggi sàppe si jàll ca seneen donte séenoo sax fa ngay toog ba àggal da ngay wëri rek ba xam du tee nga sañ a jéggi sàppe jàll ca seneen dox diggante sàppe yi moom maanaam aw ci diggante sàppe yi tàmbalee fee ba fa jumaa jeeyam di xool ba xam da nga séen foo duggam déet boo gis lu foofu tàmbaliwaat doxaat diggante yeneen yaari sàppe nga xam ne jéggiwoo sàppe si jàll ca see diggante yaari sàppe yi ci ngay dox rek di xool ba xam da nga séen foo mën duggam déet loolu moom sañes na ko ci jamono yu ne ayul ci genn wet ndax dooloor kenn bu soobee yàlla ba àggee fa jumaa jeeyam diggante ka mujj foofa ci sàppi sa ak niirub jumaa ja foofa ngay awee nag awaat ci seneen sàppi di wërati ba xam ba tey sañees na bu ilimaan xutbaa ba àggal laata ñuy tàmbalee li xaam diggante boobu nga wax fi niki nga wax fi sa soxla wala waxtaan feek keneen waxtaan wu gàtt wala yitteel xutba bi àgg na waaye tàmbali gu ñëw sax li xaam diggante boobu mën nga fee waxtaan waxtaan wu gàtt waaye nag bu ñu xasee tàmbali li xaam moom booba li xaam bi daanu booba ñuy armal diggante boobu la ñuy sib ku fi wax te gannaaw bu ilimaan armalee itam wax day daal di araam jëm jil ga rek moo fa war a sës ba tey sañ nga bu ilimaan dee xutba ngay tudd yàlla ci suuf ndànk-ndànk te bañ koo baril nde boo ko yëkkatee moom day araam dañ ko wax ca kanam waaye nag ilimaan di xutba ngay wax subhanallah mbaa laa ilaha illallah mbaa allahu akbar mbaa beneen sikar ci suuf di ko yelu te bañ koo baril loolu dagan na sañees na ko ne sax ne pat déglu xutba ba mënuñ gën a taamu kay xutba itam bu gisee lu mat a aaye mbaa lu mat a digle dagan na bu dee la ñuy digle mu digle ko bu dee la ñuy aaye mu aaye ko dañuy bañ mu defe ne bu xasee tàmbalee xutba sañu ta digle lu mat a digle mbaa sañu ta aaye lu mat a aaye aha kay xutba ga muy xutba du tee mu sañ a digle lu mat a digle sañ a aaye lu mat a aaye mel ne bu seen kuy jéggi sàppe see jëm ci see mu ne ko déet bàyyi jéggi bi ngay jéggi yaa ngi lor nit ñi loolu ak aaye la wa ijaabatuhu jéem wax nag mooy kookee aju xutba ji digal mbaa mu tere ko mën na ko tont ne ko ah jéggal ma nanga ma tax kat teyu ma ko de dama am ngànt de loolu ba tey dagan na ndegam noppi na nag ci yeñu daganal nga xam ne sañees na ko mu teg yeñu sib lu ñu sib nag mooy loo xam ne soo xamee ne taamuwuñ ko nga moytu ko ñu bindal la tuyaaba ci moytu gan ko moytu bu ilimaan aseegul bay toog ci minbar bi jéggi sàppe si jàll ci see dañ koy def ñaari xaaj bu fekkee da ngaa séen foo toog xam ne boo jéggee mën faa toog kon loola dagan na sañ nga ko su fekkee nag séenoo foo toog da ngaa bëgg boo jéggee rek xool ba xam nga gis foo toogam déet boo ko defee def lu ñu sib ba tey sib nañu ilimaan bay xutba muy xutba te amewul ak laab mel ni daa nar bu xutbaa ba noppi door a dem jàpp wala farataam mooy tiim mu daal di bëgg xutba ba àggal door a tiim nag julli kon ilimaan xutba te amewul ak laab sib nañ ko siit nañu itam bisu ajjuma mu ne du ci liggéey day bàyyi ab liggéeyam ndax màggal ajjuma ji rek dañuy bañ li nga xam ne moom la yëfoot yi def di màggal gaawu ba bañ caa liggéey wala nasaraan yi def di màggal dibéer ba bañ caa liggéey dañuy bañ jullit bi def noonu su amee liggéey moom bu ajjuma ñëw na ci xëy rek nekk ca ba nga xam digganteem ak ñi war a noddu wenn waxtoo ca des mu daldi daaw ñëw nag ci jumaa ji bu amoon yéene nag def ajjuma mu bisub noppaloom ndax mu mën a teel a waajal jumaa ji ak mën a bari la jàngal quraan mbaa xasaayit mbaa siyaare nit ñu baax ñeeg yu demee noonu moom nga xam ne jàpp gam jàppe ajjuma muy bisub noppalu da caa fasaale yéene yu baax yooyu la ci fas yéene def kon moom lu ñu sopp lay doon tiyaaba ju rëy rëy la cay am bu soobee yàlla nga xam ne kon bisu ajjuma ñëw jullit bi bañ caa xëy ci ab liggéeyam mi ngi takku rek ci yéeneem bu fekkee daa bëgg a màggal rek ajjuma ji mel na yoxoot ak nasaraan ci seen bis yooyu def na lu ñu sib bu jàppee ne liggéey bu ne dañ cee sonn te nopp lu mënta ñàkk mu ne kon moom day nopp lu ajjuma rek waaye amul nag leen lum ci yéene lu may noppalu def na lu dagan bu yéenee nag jàppe ajjuma bisub noppaloom ndax mën a bari xeeti jaamu yàlla yi yàlla sopp ak teel a mën a waajal jumaa ja dem ca kon loolu moom ngënee lu rëy la ak jaamu gu rëy la li cay séentu tuyaaba ju rëy rëy ba tey bu dee kilifa goo xam ne lu mu def ñu defe ne aw defin la mbaa muy boroom xam-xam ñu yaakaare ko ne aw royteef la daañu sib mu ñëwoon ci jumaa ja jëkk ñu noddu nodd gu jëkk mu daldi toog nag ba noddkat ba noddu mu door a jóg di naafila mel ne naafila googu dañu doon xaar nodd ga ba tey itam nag bu fekkee bu agsee julli woon na ñaari rakka nuyoo ko jàkk ji bu toogoon tam di xaar ba noddkat ba noddu mu door a jóg di naafila itam du tee ñu sib ko ndax dañuy bañ ñu xamul buñ ko séeni defe ne loolu mu def bàyyi ba nodd ka daanu mu jóg di naafila dafa am fu mu ko sukkandikoo dañu bëgg daal bu ñëwee rek na naafila la mu bëgg naafila te bañ caa xaar nag noddukat ba nodd mu door a jóg nag di naafila ne moom sax ba noddu koy daanu bu fekkee itam mu nekkoon ci naafila traka ya matagutoon mën naa jàll ca naafilaam yooyee ba tey nag ñu bañ koo jaawaleeg mu teel a ñëw ci jumaa ji nga xam ne booba dawalal tisbaar rakk yu ngi ko bëgg dawalal jotagut ba mu agsee nag mu daldi nuyu dàkk ji toog nag ba tisbaar jot ñu nodd mu door a jóg dawalal tisbaar loolu moom dara nekku ca ndax ba mu ñëw boobu daa fekk mu nestuguta dawalal tisbaar kon bi noddee itam mu jóg dawalal tisbaar dara nekku ca ba tey nag mën na waxtu wa jotee rek laata koo koy tàmbalee nodd wala ba mu tàmbalee nodd rek moom mu daal jóg tàmbalee julli bañ xaar ak noddam daanu ba tey sib nañu jigéen joo xam ne waxambaane la toll ci digg dundam rek noonu mbaa daal weesoogu fu ko góor ñi geesoo sib nañu mu ñëw ca jumaa ja ba mu yem ca sib dong sax mooy ragaluñ ca góor ñi am ci moom fitna bu amee taar lool lool wala mu waaj waajaay wax na la tax góor ñi geesu ko moom na ko wax ci kanam day araam mu ñëw ca jumaa ja waaye nag la muy doon doon ndaw lu jigéen su fekkee ne amul taar buñ koy geesoo waajul waajtaay buñ koy geesoo kon mën naa ñëw ci jumaa ja ak sib rek moo tee nekk waaye du àgg ci ak araam ba tey sib nañu ilmaan ji yéeg ca kaw min baraba ba àggal doora nuyu mbooloo mi bu door a dugg moom daal di wax asalaamaaleykum loolu sopp nañ ko waaye nag mu yéeg ba àggal door wax mbooloo mi asalaamaaleykum bu dee ci gis-gisu waa Malik dañ koy sib ne sax da nga di gis xëy na fu mel ne waa Màkka ñi ilimaan ba day yéeg ci kaw minbar ba door a wax mbooloo mi asalaamaaleykum waaye bu dee ci yoon Malik daal moom bu door a dugg rek na wax asalaamaaleykum waaye bu yéegee ba àggal nag ñu sib mu door a nuyoo ci yooyu jamono tey sib nañ ilimaan gannaaw bam jullee ba sëlmal muy naafila foofee la gën mooy mu bàyyi ba dem ba këram door a julli ñaari rakka addis ba nee na yonante bi daan def bu sëlmalee ajjuma day ñibbi ba këram door a julli ñaari rakka ku bokkut ak ilimaan nag moom bu ilimaan sëlmalee ba génn rek mbaa toog na fa loo xam ne génn xaj na fa moom su bëggee naafila mën naa naafila ndax la alquran ne fa isa qudiyati salaatu fantashiru fil ard du digle waral maanaam rek bu julli gi jeexee am ngeen sañ-sañu tasaaroo nag dem ci seen yitte fekk la ko waraloon rek mooy yonante bi daan jiital ca yooyu jamono julli gi mujje xutba bi mu doon xutba nag ñu dégg ne njëgg ma maanaam ña ña indi marchandise ma ñëw nañ mbooloo ma daw ca dëgg maag marchandise ma bàyyi fa yonante bi moom rek mu taxaw lu may mokk fukk ak ñaar rek tere leen alquran yedde ci wa ida ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuuka qaa'ima qul ma inda allahi xayrum min allahwi wa min attijara wallahu xayru rasiqin bay leen sañ-sañu nag fa isa qudiyati salaatu fantashiru fil ard bi mujj tudd ci yeñu sib mooy bisu àjjuma boobu nga toog ba fajar fenk nga door a bëgg a tukki ndegam jumaa war na la ba tey mën ngaa dem tukki waaye nag bi sañoon daal ndegam fajar xas na fekk demagoo nga toog rek ba fekkee jullit jumaa gi de sax balaa dem tukkee di araam tisbaar jot moom lay bëgg a wax léegi moom doo sañ a génn te xaaroo ba julli waaye ndegam nag tisbaar jotagut moom dañuy sib rek nga génn di tukki di fi bàyyi xéewal gi muy jullit jumaa gi te sax bu fekkee ne taam ñuy àndal ñoo xam ne li ko seeraw da nga loru wala bu dee koy dem ci wol wol sànkam boobee xose raw dana loru moom sib ga du ci amate daa ma lay wax foofu yi araam ba ci jëkk mooy tisbaar jot na julli jumaa gi war na la ngay dem di ko fi bàyyi nag di xaaroo ba julli ko bu la jumaa waree moom te julli jumaa gi jot na ndax tisbaar jot na ngay tax nga sañ a génn dem daal mooy mu wër la ne am na dëkk bu nekk ci yoon wi boo xam ne da nga ca mën a jullee jumaa mbaa da nga àgg fa nga jëm jullee fa jumaa bu la raw takk-takk ba mooy li feet weesoo goo juróomi kilomètre genn wàll moo xam buñ noddee da nga ko dégg moo xam doo ko dégg waaye daal la nga doxagoon sa digganteeg jumaa ja weesoo gut juróomi kilomètre genn wàll bu la wóoree ne wax nodd ba jot na rek war ngaa wàññiku ba julli door a jàll doo sañ a jàll noonee boo xasee weesu nag juróomi kilomètre ak genn wàll ya te fekk waxtu nodd ba jotagut kon mën ngaa wéy waaye moom it li ñu koy diisal diisal bu fekkee da nga am ñooy àndal ñoo xam ne bi la fi bàyyee rek da nga loru baa sax doo mën a demati baa booy dem ci wol sàngam boo xam ne bu la xasee raw rek mu metti ci yow dañ lay may kon nga bàyyi fii julli jumaa ga te dal di dem nga tekkee nag gannaaw bu ilimaan ñëwee ba toog ca minbar ba ngay jéggi baati nit ñi mu jéggi sàppe si jàll ca seneen moo xam séen nga foo toog moo xam séenoo foo toog bu ilimaan xasee toog ci minbar bi mbaa muy xutba moom day araam nga jéggi sàppe si jàll ca see nee nañ am na waa ji ñëwoon di jéggi baat nit ñi ci bisu ajjuma noonu fekk yonente bi xutba mu ne ko ijlis faqad aadayta rawahu abu daawud toogal yaa ngi lor nit ñi bokk na ci yi araam itam ilimaan ji tàmbalee xutba ngay wax dara di ko yëkkati ci kaw nuyoo sax mbaa fay am nuyoo sax araam na ci yooyu jamono wax ja gën a wóor sax nga nekk ci biir jumaa ji ak nga nekk ca ëttub jumaa ja ak nga nekk ca yoon way ñëw ndegam nar ngaa julli jumaa moo la tax a jóg ndegam ilimaan la ñu xutba rek yooyu jamono doo sañ a wax jenn wax ca kaw day araam doo sañ a nuyu kenn bu la kenn yooyu itam bul ko fay bu fekkoon ne moom dafa tëx mbaa mu sore sori ba du dégg itam waaye wër na ko ne ilimaan la ñu xutba rek yooyu jamono dana araam mu wax mbaa muy nuyu kenn nga xam ne kon lu waaye tàmm tàmm nuyoo bu ak see fekk ñu xutba moom na xam ne araam na muy nuyoo la nuyoo di baax baax te it waxtoom taxawee di xutba ak ba mu toogee diggante ñaari xutba yi ñoo yemoo foofu yëpp dañuy aaye yëkkati fi genn kàddu yëngal sax ab xaalis wala di xotong xotongal ay yéreem ba ay kayit sax yëpp dañ koy aaye lu may nag kay xutba daa wax wax ju génn xutba nit ki di xas koo xam ne warisu ko xas mbaay tagg koo xam ne warisu koo tagg su dee wax lu wërta wax moom kon ñafatee woon ca jullikaay ba ku yëkk ci kàddu itam du araamati ndax ilimaan ja génn na ak xutba jëm ci lu wërta jëm ba ilimaan tàmbalee xutba daal moom ba ba muy nopp ci xutba bu njëkk ba ba ba muy nopp ci moom ñaareel ba diggante boobu kenn du fa saña nuyoo araam na kuy nuyu itam day araam nga fay da la nuyu bu kenn dislee itam day araam nga di ko ndokkeel naa ko yarhamukallah day araam sax kenn di wax mbaa mu def lu wërta wax mbaa lu wërta def ba nga di ko aaye da ngay jaamu rek ci moom rek di ko fette sax mbaa nga di ko sànni aw doj bëggalee ko bàyyi li ngay wax bàyyi li ngay def sax loolu araam na yow ci sa bopp boo ko defee rek def nga lañ aaye woon hadis ba ne bu ilimaan dee xutba nga naa kenn noppil waay yow ci sa bopp soow nga maanaam def nga lañu aaye woon daa waxoon ne bu ilimaan dee xutba ko tifli dañoo sopp mu wax alhamdulilah ca suuf te bañ koo yëkkati fi mu toll fii nag mooy xamal la ne la yëkkati ga sant yàlla googee di ki wax alhamdulilah ba mu tiflee wax ko ca kaw loolu lu aram la kenn dégg ko ne ko it yarhamukallah ndokkeel ko it lu aram la yooyu ñu aaya nag ku ko def du tax ñu wax ne ak julleem yàqu na ba ne ko julliwaatal tisbaar waaye dañuy jàpp ne tuyaaba ja lay ñàkk bi nga xamee ne buñ taxawaree julli gi lekk ak naan day araam ba tey jamono yi ilimaan di xutba itam lekk ak naan day araam bu la wóoree ne ilimaan gi ne di ñëw tey day waaxu rek jëm ci xutba ba ndax waxtu jot na te mbooloo mi teew na dana araam kon nga di fa tàmbali gennuk naafila doon sax da ngay doon agsi mook nga ñëwoon ba toog ñooye moo nga ñëw ba toog moom dogu nañ ci ne lu yàgg-yàgg sañuta seen ilimaan muy ñëw jëm ci xutba ba mu jóg di armal di tàmbali naafila kay door ñëw nag ca lañu wóote waaye teqale bi rek mooy ni mu ko waxee bu dee ci yoonu Malik kay door a agsi su ko wëree ne ilimaan nga nee di ñëw ci xutba bi la jëm dana araam mu tàmbali naafila bu ko tàmbalee itam faaw mu war koo dagg moo xam àgg na ci am rakka moo xam amul rakka mu des nag day door a ñëw te itam sintoon ne ilimaan moom ba ngay ñëw mu daal tàmbali kooku lam def kenn du ko aaye ñu nga wax ne ko rek gaawal àggale ko ndax moom teyu ko day door a ñëw rek naka mu armal tàmbalee naa fi la door a yëg ne ilimaan kat ñëw na ba mu nga jëm ca xutba ba danga yëgu ko woon rek moom na gaaw àggale bañ yàggal julli ga te gaaw daal déglu xutba ba ku tàmbali woon na jullee naafila laata ilimaan di agsi nag moom ak ku mën di doon moo xam wóoru na ko ne balaa àggal ilimaan agsi mook xamu ci woon dara ñoo yemoo day àggale julleem googee moo xam jot na ca am rakka bu mat sëkk moo xam jotu ca am rakka bu mat sëkk moom na ko àggale rek te gaaw déglu xutba ba ba tey sax nee nañu bu fekkoon ne gannaaw ba mu séenee ilimaan muy waaxu jëm ca xutba ba fekk moom mu door agsi la daal di armal naafi la waaye nag daa fàtte woon ne lii kat lu ñuy aaye la mbaa da ko xamutoon kooku dañ ko wax ne ko àggaleel rek mu am rakkaat ñàkk am rakkaat yam ndegam moom fàtte mbaa ñàkk xam a tax du tee rek na àggale julli ga waaye takk-takk daal moom mooy su fekkee xasoon na ñëw ba toog gannaaw ba nag ilimaan door a ñëw jëm ci xutba ba kooku araam na mu jóg bu dee ci gis ci waa Malik di tàmbali naafila te bu ko tàmbalee faaw da ko war a dagg bu fekkee ne it day door agsi waaye nag séen na ilimaan muy ñëw wóor na ko ne ca xutba ba la jëm mu xam ne itam aay woon nañu yooyu jamono ku ca naafila teewul mu tey ko tàmbali armal tàmbali naafila it faaw da ko war a dagg ndax ñoom dañuy jàpp ne déglu xutba bi farata la kon nag wareefta yittewoo naafila ba muy dox sa digganteeg farata bu ilimaan xasee toog ci minbar bi ñi noddu nodduk ñaareel gi la fa dale ba ñu sëlmal lépp luy jaay ak lu xeetoog jaay dañ koy araamal bu dee ku jumaa ji war doonte sax xam ko siqal mu waru ko it du sañ a jaayanteeg moom du sañ a jëndanteeg moom ak mboolem lépp luy xeetoonteeg njaay buñ jaayantee ci diggante boobu ñu wax ne jaayante ga am na faaw yoon da koy tebbi ndegam tebbi njaay ma wéyegut delloo ka doon jaay lam doon jaay delloo njëkk borom bu fekkee wéyegut faaw yoon da koy tebbi xat ci njaay ma ku ne jëlaat lam moom su fekkee nag lañ doon jaay xës na raw delloo ga wees na dañuy bàyyi njëg gañ waxante woon ñoom ñaar te seet waxtu woowee ñu koy jaayante ba kay jënd di fab loola ñu koy jaay ñu laaj ña xam loola fu njëgg toll woon ci yooyu jamono ñu jàpp ne loola la jëndkat bi ameel jaaykat ba waaye jëmmi njëg gañ waxante woon moom wacc nañ ko duñ ko jàppatee dafa dajale foofu ngant yi nga xamee ne ñooy tax nga saña bañ dem ci jumaa ja ñooy tax itam nga saña bañ a dem ci jullit mbooloo ga nga xam ne ngant yi tax nga saña bañ a dem ca jullit mbooloo ma moo ngant yi tax nga saña bañ a dem ci jumaa ji ñooye moo bu jëkkee nag su dee taw mbaa suuf si amee ban bu naqaree dox bu taw ba xawee bari ba nga xamee ne boo muuduwul rekk tooy mbaa suuf si yoon wa tooy def ban boo xam ne boo cay dëgg muy summi say dàll loolu ngànt la manees naa bañ a dem ci jumaa ja manees naa bañ a dem ci jàkka yi mbooloo ma mu teg ci ngaana gu metti ngaana gu metti mooy ngaana goo xam ne ba léegi am na xet rawante na muy wàlle su fekkee ne am na xet mbaa muy wàlle moom ak mboolem xeet tawat yi wàlle te demee noonu dañuy ber kooka di ko faj ba mu wér du saña dem ca jumaa ja du saña dem ci jàkka yu mbooloo ma lu mel ne dañ faa sàkk foo xam ne ñemel ne moom rek ñoo fay jullee kon moom day war a dem te dem foofa su doon ngaana goo xam ne nag moom amatul xet te it du wàll kenn kon du ngànt dana war a dem ca jumaa ja war a dem ca mboloo ma bu teg ci tawat ju metti ba tey sax tawat ja mën naa bañ a metti loolu waaye su bëggee dem rek ca jumaa ja mbaa ca mbooloo ma yëg ko mu metti ci moom li jëmi tawat ja méttiwul noonu waaye nag dem nga ci bopp bu ko indil coono bu méttee métti kon ba tey am na ngànt mën naa toog mu teg ca nag toppatoo ku tawat bu doon nag ka tawat da di ab jaambur mbaa bu dee sa mbokk it mbokk mu la soli la lay tax nga sañ a toog fa moom mooy mënti nag ku ko taxaw te yow rek nga nekk fa waaye bu fekkee ni moom keneen a nga fa mbaa boo demee julli ji ba ñëw du ko yëg du ci am benn jafe-jafe day war kon nga julli ji sa mbokk nag mu la jege wala sa xarit mooy lee mu ne wanax wi yii mbaa ba bokk ci séel ni ki ngay jëkkër ci moom mbaa ngay jabar ci moom yooyu yëpp moom bu xasee tawat tawat ju metti rek nga daal di am sañ-sañu toog fa moom bañ a julli ji doonte sax boo demee am na ku fay nekk mbaa sab toogaay du ko jañ dara itam metti tawatu ku mel noonu rek daray may nga daal di toog bañ a dem ca jumaa ja wala bu dee geneen jullit mbooloo nga am sañ-sañu toog bañ caa dem rawante na nag kookee demee noonu ci yow àgg ci sukkuraat nga xam ne mbiram soreetu mbaa sax mu dem ba farfaatu ba àggal nga xam ne toppatoo waajtaay ak yëgle ko ak waajal ko rek muy tëje yooyu yëpp kon ngànt la luy taxa sañ a bañ a dem ci jumaa ja sañ a bañ a dem ci jullit mbooloo ma ba tey su amee alal joo xam ne su ko ñàkkee dana metti ci moom lool ndax mbaa moomul alal ji sax waaye nag bu alal ji sànkoo mën na caa jële lor ju metti mbaa ka moom alal ja te dénk ko ko mbaa daal mu nekk ci ay loxoom ci geneen wet kookee mën na caa amee lor ju méttee métti bu ragalee ne bu demee ci jumaa ji rek mbaa bu demee jullit mbooloo rek alal jooju mën naa laatu kon am na ngànt mën naa bañ a dem ba tey bu ragalee ne bu demee ca jullit jumaa ga mbaa ci jullit mbooloo ga daañu ko tëj kaso mbaa ñu dóor ko te lépp ci tooñ dong lay doon lu tegu ci aw yoon kon ba tey loolu ngànt la su fekkoon ne nag tëj ga kaso mbaa dóor ga moom ci yoon lay tegu xam na ne moom la ko waral ci moom la kon daa war a dem ci jumaa ji rek buñ ko tegee loolu itam mu xam ne dañ koo teg rek la mu war a tegoo mu teg ca bu raflee am na ñu ne rafle ga tax ñuy wax mooy amul sax lu mën a sàng awraam ci kaw wax ñooñu bu amee lu mën a sàng awraam moom doon sax war na ko rus a génne ci mbooloo mi it du te rek war naa julli ji am ñu ne bu dee boroom bañum rus moo xam ne daal la mu am moom su ko génnaalee war a rus kon loola ngànt la foofu am na wuute mu teg ca bu amee xet gu naqaree naqari bu dee xet gu naqari goo xam ne dafa lekk lu mel ni laaj mbaa soble te fekk boobu ñoruñu woon mbaa mu tux tux moo xam ne daa naqari xet su ko mënee dindi moom faaw dee war mu dindi ko du sañ ne rek daa koy bàyyi noonu ndax bañ a dem ci jumaa ja su fekkoon ne sax daa bàyyi ba jumaa jege mu tux tux mu naqari xet ndax bëgg am ngàntul bañ a dem ci jumaa ja mbaa jullit mbooloo ga yoon da koy forcé ne ko ay ci demal ci jumaa ja demal ci jullit mbooloo ba noppi nag boo demee beru foo xam ne doo lor kenn ca ña fa teew bu fekkee nag xet gu naqari ga moom tey ko woon jubluwu ko ca woon yàllaa ko dogal tey mënta fexe ba dindi ko loola kon ngànt la moom du dem ca jumaa ja du dem ca jullit mbooloo ga ca des waaye su ko mënee dindi faaw mu war koo dindi bu fekkee moo ko tey it noonu ñu waxoon rek mooy atti wax bokk na ci ngànte itam muy gumba goo xam ne mëntu yóbbu boppam ca jumaa ja mbaa fay julee julli mbooloo ga te amul koo ci yóbbu mbaa am na koo ci yóbbu waaye la mu koy fayu mënu ko ko fay su ko fayee rek loru de moom li muy gumba gumba su ma nee dem ak boppam war a dem su fekkee am na ko mën a yóbbu ngir yàlla itam mu war a dem su amee dam ko mën a yóbbu ci mu fay ko waaye dam koy fay dana woyof ci moom attan na ko bu baax du ko wàññi dara it bu daal di war a dem bu loolu nag ñu xam ne kon ngànt la ba tey nag moo xam jumaa la moo xam jullit mbooloo ko ca des la su màggatee màggat goo xam ne bu doon jéem a dem faaw mu toggoo ca coono bu méttee métti màggat googee ngànt la kon mën naa bañ a dem